dafa am association bu ñuy wax jeunesse musulmane pour le développement du senegal mu nekk kuréel goo xam ne ay ndaw ako jiite taxaw tey ne dañuy sargal Mourchid Ahmed Yane Thiam yaakaar naa Mourchid Ahmed bu ñu ko déggee gis également ma taxaw di wax ñépp dinañ xam lu ñu bokk ndax sama waay waayjur la waayjur la ci man donc li njëkk ci teraanga gi ñu mën a delloo ñi ñu ko defal mooy teew fi mais beneen teraanga bi nga xam ne gis nañ ko te xëy na duñ ko mën a fay dañuy jàpp ne defaluñ ko njaboot ji rek defaluñ ko réew mi yëpp defaluñ ko réew mi rek mais ñun ñi seq mbir mi yëpp lañ ko defal ndax euh, xale yi wax nañu ci jaar-jaaram xale yi wax nañ ci dundam xale yi wax nañ ci taxawaay bi nga xam ne taxawal na ko diine ci réew mi ak ci bitim réew taxawal na ko diggante jullit ak moroomu jullitam mais surtout taxawal na ko diggante jullit ak ñeneen ñi nga xam ne bokk ñu diina góor gi Ahmed Iyane wax ci moom daf may jafe ndax man bàyyoow ma ko moom moo doomoo euh, doomoo bi mu ma doomoo may na ma ci moom loo xam ne nii mayu ko ci doom mayu ko doomu deretam te seede rek laa si bëgg a indi dafa am ay at yoo xam ne nii tey moom kàttanam mayetu ko loolu ma am ci ñeewantal bu mat sëkk ndax waxtaan bi may waxtaan ak moom ak gise bi may gise at moom bis mu am fu mu tukki ma yëg ko ma bàyyi ba mu ma dem këram ma toog di waxtaan ak moom ma ne ko li ngay dox ci lislaam li ngay doxal umma bi ñëpp xam nañ ko kenn nattableetu ko waaye nag bët du yenu mais bu gisee lum attanul dina ko xam. rendre hommage nit fekk mu ngi nekk ci àdduna di dund di doon tàmm di gis mooy di rendre hommage nit fekk nekkatu fi yàlla def na nag tey moom ñu koy delloo njukkal ci liggéeyam ci diine bi liggéeyam ci lislaam bi liggéeyam ci Sénégal. waaye liggéeyam surtout ci éducation ci yar en tant qu'éducateur éducateur liggéeyam diplomatie sénégalaise alors mu nekk nga xam ne tey kooku prototype laa ko mën a tuddee benn royuwaay la bu ñu waroon roy ci jeunesse sénégalaise li euh, yëpp waroon euh, euh, xol ci mom te li lu war di am la mag ñi melni ñu leen di jangat di leen di présenter li nga xam moy mooy suñu jeunesse bi ñu xam ñom am nañ fu ñu royé jarul sax ñuy xol fu sori du roy mais sen royuwaay yaa ngi ci jegeleel njàngat biñ ciy am mooy ne réew mi euh, bu ñu ko rafetalee ànd bi bu ñu rafetalee nekkin bu ñu rafetalee xel yi rafetal xol yi euh, njëriñ li ci ñun rek lay dellusiwaat ndax Sénégal ñun ñëpp a ko bokk tey euh, muy autorité religieuse coutumière politique ñëpp ñëw nañ taxaw kenn ku nekk def seede ci lu baax la nga xam ci nit ki dañuy jàpp ne lu rafet la te eh, yéene nañ lu mel noonu muy law Sénégal saa su nekk.